jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yëcc gën a fës sàtte ba daanu na euh, jëm ci procès bu Ndiaga Diouf euh, ñeel euh, kii di maire bu Ndakaaru Barthélémy Dias ñaari atu kaso la ñu ko daan juróom-benn weer muy tëdd ràpp loole nag mooy kon da àtte bi daanu ni ki tey jilee moo waral sax avocat yu Barthélémy Dias nag ñoom ñu ne appal nañu leen juróom-benn fan daal maanaam ngir rek ñu def loole ñu duppee pourvoi en cassation ñu ne xamante ne kon àtte ba ñu bu première instance ba bu cour d'appel dana ko dëggal boo moyul nag euh, moom ndaw réew mii nag dana ami jafe-jafe ci assemblée euh, nationale ñu wax ci leneen muy nag li ñu dul jëfandikoo passerelle yi ñu teg ngir jéggi euh, ci tali yi ndax loole mooy gën a yombal accident bi seetlu bi ba tey ci suba ba suñuy ndaw demee nemme ko fi accident bi amee woon démb ba ñaari bakkan rot ca gis nañu ne askan wi tey li ñu gën a mën a jéggi tali bi waaye duñu jaar ci lu ciy pexe askan wi ne ngalawaay nañuy jaar ci passerelle yi ngir mën a moytu accident euh, yi tey di bëccëg bi ñu jagleel euh, xeex jàngoro ji ñu duppee Alzheimer ci tubaab bu ñu ko déggee ci wolof nag naax la ñu koy wax seetlu gi fii ci Sénégal euh, mu am nag ñu ko amee lool xam ngeen ni ñu koy gën a seetlu nag ci mag ñi muy feebaru naax boobee moo waral sunu ndaw Cheikh Diop doxantu na ba ca kër docteur bu Fann seq waxtaan ak njiital service bu gériatrie bu Fann ñu wax ci diggante maison production bi di euh, Marodi ak li ñu tere nag kon euh, série bi ñu duppee Rebelle euh, daal di kon daw ñooñee nag jiite kon maison de production boobu dañoo bëggoon janoo ak taskatu xabaar yi ngir indi leeral ci biir mi waaye nag dañ leen ko sax mujj lankal seen janoo boobu ak taskatu xibaar yi mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirlu tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalal ak jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu koy waxee woon àtte ba daanu jëm ci euh, procès bu Ndiaga Diouf ñel kii di euh, maire bu Ndakaaru euh, di Barthélémy Diaz ñaari atu kaso la ñu daal ko daal di daan juróom-benn weer yu muy tëdd ràpp moom mii di Barthélémy Diaz mu mel ni ko la ñu njëkkoon àtte ci moom tey ji nag cour bi da ko daal di dëggal muy ëttu àttekaay bi njabootam nag lañu doon sàkku rek mooy nañu leen jox téeméeri million ak juróom fukk ute nag ak li ëttu attekaay bi wax ni moom la ñu war a euh, kon jox njaboot gi muy ñaar fukki millions ak juróom leeral yeeg Abi fay Alioune Diagne ci caméra bi réquisitoire bu parquet général bi juge bi topput li ni mel la mu gën a dëggal rek moo di pen goo xamante ni teg na ko maire bu Dakar bi ci première instance bi moo di ñaari at yoo xamante ni juróom benn weeru la koy tëdd Barthélemy Diaz nekkul woon ca salle audience bi nga xamante ni ay ñoñom ñoom ñoom ñoo fa nekkoon teel ñëw ñoom ñi ñu ne dañu sax ruus ans ñu topp benn dossier xaw ma ndax am na dossier boo xam ne duré na autant tey nag dégg ngeen juge bi nee na confirmé na première peine bi mooy deux ans doo six mois yi nga xam ni moom la ñu tëjoon Barth ma rappelé ni Barth moom moo demandé woon appel parce que dafa considéré woon ni dañu ko tooñ parce que nit nekk sa maire yi di liggéey sa askan ay agresseur fekk la fa attaqué la ñu war a wëri agresseurs yi ak ña leen yoon yow ñu lay topp parce que lan d'accord ak Macky Sall. la ñu doon xaar moo dikk ñu seetal ko ba mu set wecc moom maire bu Dakar gi dossier bile yàgg na lool diir gi toll na ci. fukki at yoo xamante nit xamut fa muy taxaw. mais nous sommes désolés euh, qu'il ne puisse pas être purement et simplement acquitté. waaw euh, yaakaar naa verdict bi tey euh, vraiment ak ni ñu ko sénégalais yëpp ñoo ci am betteel sénégalais yëpp ñoo ci am betteel sénégalais yëpp ci am naqar parce que affaire Ndiaga Diouf affaire la bu nga xam ne vraiment honoré wul la démocratie de notre pays aujourd'hui ci histoire politique Sénégal affaire Ndiaga Diouf daf ci bokk loo xam ne daf daf koy gàttal ca seen wàll ñoom ñii di partie civile bi dañu ànd ak dal te it bileeg mbir bettu leen benn yoon dama ne ñun décision bi bettu ñu waaw parce que loolu la mu sa gëm loolu la mu sa wax waaw ki rey ñaga juuf xam nañ ko te loolu mu sa wax ni Barthélémy Dias moo rey ñaga juuf loolu leer na yoon dëggal na ko donc décision bi ñu jël amuñu dara luñ ci bett. njabootu ndem si yàlla Ndiaga Diouf ñoom la ñu doon laaj toll na ci téeméeri million yu teg juróom fukk yoo xamante ni dédommagement ak intérêt la maanaam juróom benn yoon ci ñaar fukk ak juróomi million ya nga xamante ni juge bi décidé na ne moom la Barthélémy Dias da leen fay. ci li ñeel wàllum jot ca koppar googe avocat ba leen di layal nee nañ lépp la nga xamante ne yoon may na leen ko ngir ñu jot ci des na koy def. maintenant dégg naa ñu naan partie civile bi dañ leen a doon laaj joxuñu leen ko ñoom amuñu dara ainsi de suite ñu wax xam na ne waxuñu dëgg parce boobu ba léegi jotaguñu ci ñu ngi ciy daw boobu ba léegi léegi ñoom kom am na confirmation léegi dinañ def lépp li nga xam ne yoon moom la wax. pour ñoom ñu jox leen li nga xam ne ñoom ñoom leen war a ñoom lañ leen war a jox famille Ndiaga Diouf. ay député yu yeewi askan wi ñoom ñëw ci tribunal bi takk seeni écharpe waaye mujj ñoo dugg ci biir ak yooye ndaxit dañu ko fa aaye mu nekkoon tribunal boo xamante nit fees nag dell ak ay takkidar mu nga kabi fay ni nga ko waxee euh, teg nañu koy daan waaye seetaluñu ko wecc moo waral euh, ñiy layal euh, kii di baax Barthélémy Diaz ñu àppal leen juróom benn fan ngir nag ñu def loolee ñu duppee pourvoi du cassation lu ko tàmbalee ñaar fukki fan ak benn lay doon ci weer wii ñu ne lu ko mooy nag bu dee dañoo sukkandiku ba tey ci àtte bu njëkk bi tukkee rek kon ci première instance bu cour d'appel mën naa indil jafe-jafe kii di Barthélémy Diaz rawatina ak mu doon ci pencum ndaw mi sax mënees na ko cee dàq waaye loolu yëpp nag liñ ci gën di firndeel rek moo di ëllëgam daal euh, ci wàllu pencum ndawi mi mi ngi tënku rek ci cour suprême Ibrahima bu ñu jàngatee décision bi nga xam ne cour d'appel rendre na ko tey jii benn laaj moom mooy sampu Barthélemy Diaz ndax du ñàkk mandat wu tontu gi faw cour suprême daal di fësal moom it décision ginnaaw bi cour d'appel confirmé jugement bi nga xam ne moom la ñu amaloon ca première instance mu soxal faatum Ndiaga Diouf gannaaw bi cour d'appel dëggalee décision bi ñu njëkkoon a rendre fi mu toll ni avocat yu Barthélemy Diaz juróom benni fan la ñu am buñ ko wàññee ci tey jii ngir nag def li ñuy duppee pourvoi en cassation maanaam saisir cour suprême ngir mu jéem a neenal décision bi nga xam ne cour d'appel joxe na ko tey jii ci àllarba gi. donte Barthélemy Diaz daan yi ñu teg ci kawam ñaari at la ñu wàññi ci juróom benn weer yoo xam ne daf koy tëdd loo xam ne sax amal na ko ba noppi wante condamnation fi ñu toll nii nekkul lu définitive maire bu Dakar ba jamono ji député quatorzième législature bi la wante mandaam nag boo moyul mën na koo ñàkk su fekkee ne cour suprême dafa rejeté pourvoi en cassation bi nga xam ne avocat Barthélemy Diaz yi moom la ñu bëgg a dugal bu boobaa Barthélemy Diaz day fàtte sax lii di mandat parlementaire am ndax da koy ñàkk loolee nag constitution bu Sénégal moom moo ko wax ci article 61 alinéa 6 mu wax ca ne député boo xamante ne da nga am condamnation pénale définitive dañ lay dàq ci liste député ya nekk ci assemblée nationale te ministre de la justice moom mooy sàkk lu ni mel bataille judiciaire bi kon Barthélemy Diaz ak ay avocaam dañ koy wéyal li ci des rek mooy convaincre ak ay arguments juridiques yu solide lii di cour suprême bi bu fekkee ne bëgg nañu sauver mandat parlementaire bu maire bu dakaar Ibrahima kan bu fekkente ne bëgg nañu mooy moytu accident yi euh, lii gën daal mooy passerelle yi ñu euh, teg nag askan wi nañu cay euh, jaar ci fàttali rek xam ngeen ni démb am na accident bu metti bu am rek ca voie de dégagement nord ba ba ñaari bakkan rot ca li ko waral nag mooy ñaar ñooñu doonu doon jéggi waaye ba tey ci suba lanu seetlu rek ca boor yooyu mooy passerelle yi askan wi tey la ñu gën a mën a jaar ci tali yi di jéggi moo waral ñenn ñi ne faw rek ñuy sàmmonteeg loolee di tëralin route moo fa ak Mohamed Nabi Dia. c'est mieux hein, de de <laughs> c'est mieux de traverser la pour éviter les la circulation. gannaaw ba accident bu métti métti am démb ca VDN ba waxtaan bu jëm ci wàllu utilisation passerelle dellusiwaat na bu baax a baax ci jamono ji. vu que ni nit ku nekk yaay nekk sa magum bopp quoi parce que soo gisee tali bi passerelle bi dañ ko fi def pour ñu ay nit di fi aw euh, waroo waroo ko bàyyi di aw si tali bi su fekkee yow bëgg nga sa vie quand même. yi tamit boo xoolee tamit part de responsabilité ñi ñii la tamit euh, du borom oto yi tamit du chauffeur yi tamit parce que vie que euh, defar lañu ay escalier yu nga xamante ne nit ki mun nga aw foofu noonu nga jàdd sans dara laal la mais boo naree woon da ngay traversé te oto yi heure du ñu nekk di daw ndànk ay vitesse lañ nekk di dawee. yooyu la nit yi ci ñàkk seen bakkan nag taxul ñeneen ñu ngi continuer di jéggi bi. te duñu jaar ci passerelle bi fi ñu nekk nii nekk ca VDN te soriwul dara ak fa accident bi amee démb. Eh, lu may conseil gars yi tamit parcelle bi ñi lañ ko defaral pour ñu yëg du amul même benn kii danger mun nañ yëg jël suñu temps wàcc ndànk dem fu ñuy dem loolu laa mun a yokk tamit pour wax ko gars yi tamit. question de maturité la rek yow mi nga xam ne yaay aw si tali te bàyyi passerelle bi peut-être expérience su wala xam àdduna bi tax ngay aw fii te gis lii lii lañ fi def pour nit ñi di fa aw c'est juste ça question de maturité la ak euh, xam li nga bëgg a fet parce que mën nga aw fii oto gaañ la alors que fii vu que di nga perte sa temps quand même mais plus sûr. fan yi nu génn bilan bu jëm ci ay nit yu ñàkk seen bakken ci ay accident yoon bi bëri na lool ndaxte kat ci lu tollul sax ci ñaari semaine lu ëpp fanweeri doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakken jëfandikoo kon passerelle yi doon lu mën a dimbali askan wi ngir ñu mën a wàññi bu baax a baax jéeya yi am ci tali bi ñu koy jaajëfal Marcel Maroun banque bii di eh, BCEAO nag eh, taxaw na rek eh, ngir nag jàppale askan wi waaye it fexe ba njëg yi daal fi mu ne nii nag ñu mën a nekk benn place ndax ku ne xam na ni marché bi metti na askan wi sonn nañ bu weesoo njëg yi tamit banque bi bëgg na daal fexe ba koom gi suqaliku ci réew yi nga xamante ne nag ñoom ñoo bootu ci BCEAO gouverneur bu yees bi moom moo ko xamle tey jile ci ndaje mi doon amal nag jagleel ko comité boobu ngank wàll wàllu politique monétaire bi ci BCEAO di saprera Alioune Diagne ci leeral Covid-19 bi conflit sous-régionaux yi changement climatique bi ak guerre russo yëpp di ay situation yu jur ay njeexital ci sunu ay koom-koom ba tax troisième session ordinaire bu comité de politique monétaire BCEAO bëgg fi indi ay solution ni ko sunu mandat bëggee ak sunu règlement banque centrale dina def li ko war ngir koom-koom yi mën a teguwaat ci yoon comme ni mu waree. bokk na ci li session bi annoncé mooy fexe ba njëkk yi mën a am stabilité ngir mën a jàppale croissance économique bi ci ci réew yi nga xam ne yëpp ñu seq BCEAO. indiqué que l'atténuation de ngir wàññi jeexitali crise bi ci suñu ay koom-koom dina bokk ci suñu ay priorité euh, looloo tax ñu war a taxaw bu baax ci ubbi suñuy gët ngir jël ay décisions yi nga xam ne mooy gën ci sunu ay koom-koom. en cours et nous impose surtout politique monétaire BCEAO bokk na ci ay mission am fexe ba nga xam ne prix nañu am stabilité waaye tamit mën soutenir croissance économique bi ci bépp réew ci Afrique de l'Ouest di sa prera ñu àddu ci euh, bëccëg bi ñu euh, jagleel tey jii euh, xeex jàngoro ji di Alzheimer olof naan ko feebaru naax feebar bi nag la ñu seetlu mooy fii ci suñu réew daanaka dafay gën di jéggi dayo du suñu réew kese mënees naa wax ni réew yi fare booy xool lu ci ëpp ci Afrique waaye daanaka nag ci nasaraan si lañu ko gën a seetlu feebar boobu nag moo waral tey ji ñuy def ci ab gëstu ndax bari na li ñuy faral nag di soofantal léeg-léeg du sax soofantal leen di leen ree ci biir kër yi muy mag ñi te dañoo naax te naax googu nag lu jara bàyyi xel la Cheikh Diop ci leeral. ginnaaw aw taxaw seetlu ci service bu gériatrie bu hôpital Fann feebar bi di naax mi ngi représenté lu toll ci pour cent yu cas de démence. nit ki nga xam ni day fàtte ba pare il est conscient que dafay fàtte parce que euh, loolu nag ça le rend anxieux loolu mooy si yi nga xam ni moo jiitu. ensuite feebar bi suy dem day aggravé wu suy aggravé wu da ngay dem ba nga xam ni euh, doo xamante yi bés bés bés bi ñu nekk ci semaine lundi la mardi la wala mercredi waaw waaw loolu lay commencé donc euh, doo xam ban jour la ñu nekk dinañ dem ba doot ñu xam ban mois la wala ban année la wala ñu dem ba nga xam ni sax seen environnement. dootuñu ko xam ci trouble du comportement yi sax dinañ gis ay ay euh, ñi nga xam ni ñi nga xam ni donc euh, euh, da dootuñu xàmmee seen kër. fii ci Sénégal téeméer boo jël juróom-benn fukki nag amee nañ bile jàngoro mu doon loo xamante ni nag sonal la lool ñi nga xam ne ñoom ñoo di mag ñi. donc maanaam looy gën a jëm a mag donc mën nga am probabilité am ko leneen li tamit seetlu nañ ni que dafa am ay famille. dafa am ay famille yoo xam ni famille d'Alzheimer la maladie bi par exemple soo amee ci sa entourage familial koo xam ni am nga ko yow mën nga koo am. Euh, ñi nga xam ni aussi seen njàng soriwul ñi nga xam ni seen njàng soriwul donc euh, ak ñi nga xam ni aussi dañu am ay ay ay euh, ay anti dañ ay ay ay choc. ci bopp saa bokk nañ si ñi nga xam ne daal day favoriser survenu survenu maladie bi. aw jàngoro la woo xamante ni itam mënees na ko donn ci loolee itam lépp lu ñeel wàllu dépistage yi dina mën a tax ñu daal di koy gàttandu. mais li ñu am mooy garab yi nga xam ni dina ralentir euh, processus bi. dina ralentir processus bi et puis dina permettre que nit ki su naroon dund euh, cinq à sept ans avec la maladie mu am mu am euh, mu dund lu gën a yàgg ak feebar bi daal maanaam nit ku nekk daal à partir d'un certain âge mën nga ko war nga ko seetlu waaw war nga ko war nga moytu di ko gàttandu ko sa sa sa sa àdduna. amul benn garab boo xamante ni nag mënees naa faj bile jàngoro yenn ci ay médicament wala boog ay stratégie yu gestion yu symptômes yi nag dina mën a tax nit ki na mu koy dundee mën a wàññeeku. Uh, màggal tey jile mooy bi ñu jagleel wàllug uh, jàmm uh, ci àdduna wërngal këpp fii nag ci Sénégal dañoo def rek kon tuuti seetlu ci bëj saalumu réew mi fu ci mel ni Casamance nga xamante ne nag fi mu ne ku ne xam na ni way fippu ya nag xeex ba daanaka lu jegeen ñeent fukki at a ngi nii Sénégal di ci def kéemtalaay kàttanam waaye jamono ji ñuy wax ak yéen nag dañoo am yaakaar ak déggoo gi am dem nañu sax ba ni xëy na du ñàkk ñu wéer ngànnaay du yàgg dara nguurug Sénégal def ay jéego ay mbootaay yi nekk foofu it naka noonu Lamine Ba. sur le plan psychologique le MFDC comprendra. xel mën naa dal jamono ji ci lépp li aju ci wàllu wutuma jàmb ji ci Casamance donte sax ne ne meeku nañ ay opération de sécurisation yi nga xam ne armée bi tàmbali woon nañ ko jëmale ko ci kaw Salif Sadio ci ndorteelu at bi moom mii di chef de guerre bi daanaka armée bi jàppante woon ak moom ay jàppante yu méttee métti ndax teg loxo bi nga xam ne jotoon na ko def yenn soldat Sénégal nga xam ne ñoo ngi doon liggéeyal CEDEAO ci frontière ba Gambie waaye loolu taxul dara yàqu li nga xam nag moo di bi li safaanoog loolee sax li ñu nemmeeku mooy opération de sécurisation yi nga xam ne nguur gi amal na ko fi ngir delloo fi kaarang gi dafa gën a dëgëral li nga xam nag moo di wutum jàmm ji ndaxte faction yi bëri dafa mel ni ñoom sax jàpp nañ ne jamono ji jàmm ji ci waxtaan la mën a antu yu weesu braquage yu ndaw ndaw yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci route nationale numéro 4 nemmeeku ñu ab xew-xew bu metti bi nga xam ne mën nañ jàpp ne am na li mu yàq ci li nga xam ne nag moo di processus de paix bi li ñu gën a nemmeeku ci mbir mi mooy sax ñi nga xam ne ñoo di chef de guerre yi seen taxawaay xawoon metti ba léegi dañoo mujjee ubbeeku fas yéene waxtaan ak nguur gi mu ngi mel li ñu gis fa nga xam ne moo di Bissau ndax kii di chef de guerre bi di César Atoute Badiate jot naa toog ak nguur gi ak ay facilitateur wane mbébét bi nga xam ne am na ko jublu ci teg li nga xam ne nag moo di ci suuf taxawaay boobu nga xam ne nag César na ko am na bi nga xam ne jur na ko ndaxte waa initiative de réconciliation des ailes politiques armées du MFDC xam ne moom mooy waxal base bu jàkkaay ñoom it xalaat bi ni mel jot nañ ko fësal ci njël njëlbéenu weeru septembre jamono ji mën nañ ne cadre bi nga xam ne soxla nañ ko ngir jublu ci waxtaan ngir wutum jàmm ci Casamance taxaw na ba pare donte sax ne nguur gi ci doxalinam wañe na ni du négocier li jëm ci wàllu intégrité territoriale waaye am na ab buntu bi nga xam ne tijji na ko ci ñi nga xam ne nag bëgg nañu waxtaan ngir jàmm ji mën a dellu fi ci Casamance ah lu jiitu bëccëg bi nag uh, ca Casamance amaloon nañu faat waxtaan mu uh, boole ay observateur ñi xippi seen gët di xool uh, ci crise ba am ca Casamance ak plateforme boobu ëpp sox ëmb soxna yay def seen kémt lay kàttan ngir jàmm am ca Casamance ñoom ñëpp nag mànkoo nañu ne xeex bi tey benn la mooy xool lan mooy sabab xeex bi saa ne ak nees war a def daal ba ngànnaay wax naa ko léegi ñu wéer ko na mu gën a gaawee ñu teewlu Ndeye Marie Thiam moom moo jiite plateforme bi ëmb soxna yi nekk ca Casamance di xeex ngir jàmm mu am fa ci micro Lamine Ba. tey jii dañoo organiser benn panel nga xam ne observateur u crise u Casamance bi ñoo ko ñoo ci waxtaan ak ñun. Euh, dinañ ci waxtaan ki loo xam ne lépp loo xam ne gàllankoor boo xam ne dana mën a indi euh, ñagasal processus de paix bi euh, danañu déglu aussi échange yi fii am. parce que ñi fi toog yëpp dañuy nekk ay nit yu am expérience ci mbir mi ñu dund aussi crise bi ñooñu tam dinañu am lu bari yoo xam ne danañ ko yokk ki waxtaan bi lépp luñ ci jot na ci waxtaan ba dañ ko tasaare wax ko jox ko état du Sénégal jox ko également mouvement des forces démocratiques de Casamance. ñuy profité ci bés bi aussi lu bu baax a baax avancé yi am ci processus de paix bi euh, gis nañ fi li fi euh, César Atoute def ak état du Sénégal. signature accord yi rafetlu aussi accord bi ñuy signé le 4 août dernier rek euh, septembre mujjee bi entre jàkkaay ak état du Sénégal dafa di loo xam ne dafa rafet lool ñu ci oo encore Salif Sadio nga xam ne moo leen jiitu sax kii waxtaan bi ñu oo ci Salif Sadio mu continuer waxtaan bi mu doon def ak la communauté sante Gidio Euh, gannaaw Casamance ñu wutali euh, Matam Matam nag euh, pënd baa ngay tàmbalee wuri ca ña fare ca APR li ko waral am na ñenn ca ñoom ñu tàmbalee fabu di wutali yeneen i parti politique ku ci mel ni Barka Cissé mi nekkoon rek DRH bu agence de sécurité de proximité jamono ji ñuy wax ak nag fi mu ne nii dem na fekk ji Pastef bu Ousmane Sonko gouvernement bu yees bi ñu sos indi na coow ca Matam waaye tamit pencum ndawi réew bu yees bi Ali aérien muy démission bu njëkk bi ñu sampee APR ak léegi fii ci diwaanu Matam Barka Cissé bokkoon ci ndaw yu gën a fës ci parti boobule ànd ak Macky Sall laata sax muy tàbbi ci nguur gi démissionné na ci APR dem fekk ci Pastef bu Ousmane Sonko ci lu waral décision bu ni mel moom ci boppam moo koy àddu jëmale. dogal boobu nag ñaari moo ko sabablu benn bi économie moo ko lal beneen bi politique moo ko lal Fuuta bi ñu doon jaay daanaka bi ñu jàppalee ba nguur gi changé Fuuta dina changé boobu ba léegi état projet ndax liñ ñu digoon ak li France dara dara dara amu ci ndax Fuuta boobu noonu nga fekk nit ñoo xam ne bu ñu añee du ñu loolu du ñu ko wax ay ñoo ko wax Fuuta bi ñu hérité woon ak Fuuta bii ni daanaka dara changé wu ci mooy lu ñu promettre woon dara amu ci loolu nag lu koy indi mooy ñi nga xam ne ñoo gëmoon projet bi dès le départ moom président dafa am ñu mu wóolu mu deg leen teg leen Fuuta ñoom ñoo ñëw weccoo ay transhumant par rapport ak ñi fa nekkoon di sonn ci moom ñoom ñëpp kenn defatul politique waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo transhumé avec la complicité ci kay di nekk ñi nekk APR Matam ba kenn sawaratul pour liggéeyal président Macky Sall nag ginnaaw ñu ngi fa teg liggéeyuñu pour Fouta ñun jël nañ décision tey bàyyi àndandoo ak APR parce que dañu jàppale ñun dañu wor dañu jàppale dañu wor Fouta gannaaw kon nërmeelu gi benn Bokk Yaakaar nërmeelu woon ci législative yi ñu génn ci dëkk yu mel ni Thiarène ak Séddo parti njiitu réew mi mu ngay wéy kon di dundu ay jafe-jafe jamono yii fii ci Matam te nag départ wu maanaam génn Malick Sall ci biir gouvernement bi ak ñàkk reconduire Mamadou Mori Diaw biir bureau bu assemblée bokk na ci li merloo askan wi bokk ci gox bi nga xamante ni dañ koy dàkkantale titre foncier bu Macky Sall ñu dellu wax rek ci génnuk imam Moustapha Guèye euh, Maymuna Ndiaye ak Abdoulaye Anne doxantu nañu nag euh, ba ca euh, njaboot ga kër ga lañu fa fekk nag aw tiis kese la muy jege ñaale yi ak ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ñëwoon rek ngir indi seere ci nit ki fii bàyyi ko moom mi jiite woon nag imam ak ulema yu Sénégal seere bi benn la ku daan dajal la ku daan boole la njabootu diine yi fii ci Sénégal sax nag nangul nañ ko ko ñu teewlu seen i kàddu ak Maymuna Ndiaye. da daan jàngalekat dafa am waaraatekat dafa am waaye moom jàngalekat la te newatu fi waaye dañuy kon ne di jàngal ndax bàyyi na fi loo xam ne ne ku ko recherche ku ne da ngay continuer gis ne dina continuer di jàngal ay génération ba ci génération ndax ba mu commencé di jàngale boobu yi yëpp amu fi woon kuy waxaala rasulullahi wala xaala moom ku ko fiy wax rek ci télé beeg rajo moom moo tax. wax dëgg yàlla day lépp laa ci moom taalibeem laa ci moom jàng ci alxuraan ci moom lépp daal laa ci moom wax dëgg yàlla. sant nañ ko gërëm nañ ko jàngal nañu alxuraan xam nañ lu bari ci moom ci alxuraan wax dëgg yàlla. bëgg doomu aadama yëpp laa biir ah man de yàlla laa koy ñaanal yàlla laa koy bayal man moom taxawaayam ci man yàlla rek laay ñaan mu fayal ma dama ko wax fii ñu ma mu fayal ñu ko. kon nag ma maas ñun gi ndax fu ma toogoon di wax yàlla laa koy bàyyi yàlla na ko yàlla fayal li ma taxaw ci sama dund man man naa yàllaa ko xam moom la ñu amal yàlla comme ñu wax de fi ñu na ko wëral fi ñu na ko yàlla wutu ci njabootam yàlla na barkan des ci ñun ñëpp. mu koy kanaa baax rek ak bëgg ñëpp fuuf ñëpp man ma lim doon adoo ab sëriñ xam lépp di wax lépp wallaahi. que li mu li mu defar loolu mënuñu koo wax toog fii di ko wax bu ñu ko ñaanal yàlla yàlla may ko fi mu jógee fi mu jëm gënal ko foofu mango moom sax nag euh, néewam ñu ngi koy xaar ci àjjuma ji ñu dëgmal euh, nara yemook euh, ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre bi ñu ne ñu wutali Thiès ca kër maam Bawo Ndiégène ña ngay waajal nag gàmmu gi bu baax a baax ni ñu ko seetloo ci ceene Thiénaba Tivaouane ak Ndiassane foofee ca Thiès jël nañ matuwaay ya ca war ab CRD amal nañu ko gouverneur teewoon na fa la mu sàkku nit ñi nag moom gouverneur rawatina ak chauffeur si mooy nañu daw ndànk ngir moytandiku accident yi diwaanu dañu fay fekk fekk ji Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. dib ndaje de fii ci gouvernance bu Thiès dajale woon famille Ndiégène euh, chef de service régionaux yi gouverneur bi ànd ci ak comité d'organisation bu gàmmu Kër Maam El Hadj fii ci Thiès waxtaane nañu lu yaatu nag ci wàccaayu gàmmu gi. police wax na fi léegi dégg ngeen ko ne dina fexe ba gàmmu gi ñu organiser ko ci jàmm. kër gi ñu sécuriser ko davantage mosquée bi quartier bi yépp ñu sécuriser ko. ay sites yu xam ne nii. ay arrêt Jakarta la woon yooyu yëpp ñu dindi ko ba nga xam ne nii euh, keneen ku nga xam ne leneen moo lay indi doo ko mën a def gendarmerie aussi dégg ngeen leen jàmbat ngeen médecin jàmbat ngeen matériel wax naa médecin chef région na ma defal rapport sur ça. gouverneur gis ne ren jii di yi bari na lool muy artu nag ak joxe ay digal ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor ndaamaar yi fas ne indi nit ñi ci gàmmu kër maam El Hadj mooy chauffeur si nga xam ne nii ñooy dawal oto indi ñii def ndànk pour ñëw ci jàmm dellu ci jàmm boo sonnee nga noppalu. président comité d'organisation bu gàmm gi wax na lu yaatu nag ci lu waral gàmmuk famille Ndiéguène gi fii ci diwaanu cees Alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène moom moo taxawal gàmm gi. mooy suñu maam bi jóge woon Saalum jaar Tëngéej dafa tarbiya yàlla wommat ko mu ñëw Thiès. ba yàlla samp ko ci Thiès li mu njëkk a defar mooy zaawiya Tijaan ndax dafa indi fii moom tariqaam nekk Tidiane xam ne silsila bi ci maam Cheikh Omarul Fuutiyu la jokku moom nag mu daal di taxawal zawiyam defar daaram wut ay toolam fii ci kër Issa gi nit ñu dëkke léegi. ginnaaw sa gi nag la taxawal gàmmu gi. mu Mounirou Ndiéguène di xalifu El Hadj Mame Barou ñaanal na nag réew mi am dal ak jàmm ak ujaaj yi nga xamante ni fas yéene nañ jóge ci région yu bari ci Sénégal dikk fii ci Thiès ci kër moom El Hadj Ndiéguène jërëjëf Cheikh Anta Diop gannaaw cees diwaanuk Ndar wax ci uh, kasak kasak nag newuñu Ndar kese waaye booy seetlu sax daanaka uh, ci réew mi yëpp baritul lu ñu koy uh, gis rawati nag fa fee ca diwaanuk Ndar moo waral nag ñay féete daal ci wàllu caada ak di dimbali gone yi dugg ca néegu góor bëgg a def seen kéemtalaay kàttan ngir dekkalaat kasak googe moo waral association boobee duppee seen bopp ànd sukkali Santhiaba daal di nag amal ab kasak gannaaw ba ñu boolee lu toll ci téeméeri xale yu duggoon néegu góor dañu ci ànd ak seeni jóg. téeméer association ànd soxali Santhiaba moo daal di amal xew bu nu mel fexe lu toll ci téeméer ci ay ndongo ñu daal leen dugal néegu góor. ñu amal kasak bu rëy ci diwaan Ndar gi ci Santhiaba mu mel na lii doomu Ndar yi dañ koy tàmbali bàyyi moo ne day bokk na ci li nga ci ni day doxal cosaan ak aada bu fekkee ni tënku nañ ci kàddu ki nga xamante ni mooy ab Abdoulaye Ngom. liñ li li ñu tuddee seen association bi dina am ci sant bi maanaam suqali sant bi Kasak nag moom xam nga yàgg na ci ci culture la bokk ci suñu aada ak suñu cosaan la bokk bu daan am lël euh, fii ci sant bi ñaar ñetti koñ yu nekk da nga daan dégg guddi gi ñuy tëgg muy riir parce que koñ bu ci nekk wala ñaari koñ ñett yu nekk amoon na ay amoon na lël. Kasak di ko amal xale yi nga ci ni dañuy duggoon néegu góor dina leen jàngal lu bare rawatina seen biir àdduna ci kàddu kilifa yi nekk ci gox bi. ñu ci bare bu daan dugg néegu góor ay weer kott lañ ciy teg daay takk soxna. ci culture la bokk ci suñu aada la bokk kasak moo daan wane ni ñii ñoo nekk ci lël ñoo nekk ci néegu góor xam nga liñ daan wax frère de case frère de case mooy koo xam ni yéen a bokkandoo duggandoo néegu góor bokk mbaar frère de wala bokk mbaar day dem sax ba ngeen am ay relation ay ay diggante yoo xam ne moo gën a sax xóot moo gën dëgër koo xam ne yéen bokk ndey ak bàyyi. association ànd soqali sanca ba amal xew-xew bu nu mel ëmmam mooy fexe sanca ba jafe-jafe yi fay am ñu saafara ko ca nu mu gën a gaaw ci seen ndaje bu nu mel professeur Amadou Moustapha Sow lañ ko pare ne woon mangoog waxoon nañ ko ci euh, ponk yi muy ñagas ñagas bi am ci diggante euh, production bi maison de production bi di euh, Marodi ak direction bu cinématographie ñoom waa Marodi tey jii dañu namoon a janoo ak taskatu xabaar yi ngir nag indi leeral ci série Rebelle bi ñu daal di kon dakkal ne dootu daw waaye seen ndaje moom ak taskatu xabaar yi dañ leen ko mujj gàntal réalisateur bi di Thiam Thiandoum yëkkati ci ay kàddu dénk ko Ibou Diouf ñu teewlu ko kon du ñàkk xëy na euh, bu dee sotti na élément bi euh, lu ko mooy di ngeen ko am ci euh, xibaar yi kon lay doon ci nasaraan léegi léegi di ngeen ci ànd ak Sara Cissé naka noonu it tàggat yaram di ngeen ci ànd tamit ak Sara Cissé ci fàttali jokkalante lenge bi tey la woon diggante jëwriñ ji di Matar Ba mi fi nekkoon ak ba Diatara mi ko wuutu ci bokk ministère bi ñu gàll wàllu tàggat yaram jërë ngeen jëf ñu leen di sant di leen gërëm yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti léegi léegi xibaar yi ci nasaraan ak Sara Cissé